وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy teewloo ak fu ngeen ñu mën di teewloo ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu boroom yokk ko kàttan ak man-man mu ànd kook ñi koy jàppale ci liggéey bi yëpp waaye bokk ko ak ñun taalibe yëpp di leen wax ne dellusiwaat nañ rekk ci jotaay yi nga xam ne dañu ko baaxoo di amal fii ci ëttub jumaay tuuba lépp rekk jëm ci waajtaayu bis bu màgg bu sell bi waaye tamit di ko defee ci fan yu tedd yi nga xam ne mooy fani weeru safar comme niñ ko baaxoo jotaay yi ni muy doxee mooy dañuy xool kilifa yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu xam-xam ñu indi benn tomb séq ci ak ñoom waxtaan joxalante ci ak ñoom ay kàddu waaye tamit e, gën a yaatal ci yenn déggiin yi ak ci yenn anami e, tomb yi nga xam ne war naa gën a leer ci boppi murid yëpp def nañ ko ci ay jotaay yu wuute tey jii jotaay bi nga xam ne moom lañu nara séq ak suñu ñaari gan yu baax yi di nag jotaay boo xam ne dafa spécial dafa am ak jagleeg boppam ndax ñaari mbir mbir mu njëkk mi mooy dafa gën a sës ci màggal gi te xam nañ ne nit ñi lu gën a sës ci màggal gi rek di leen gën a jëmmaleel bis bi ak borom bis bi loolu day am jagleeg boppam waaye geneen jagle gi mooy tomb bi ñuy waxtaane ak ñi koy waxtaane ma feggoo ci sama ndeyjoor suñu mbokk suñu xarit suñu wóllëre sëriñ Issa Gueye di ab gëstukat di bindkat waaye di boroom xam-xam bu mag di yëngu ci xam-xam fonk liggéey bi lool it di ci jàpp saa yu ne Serigne Issa comme ni ngeen ko xamee nekk fee ca Masaalikul Jinaan di fa jàngale xam-xam waaye bokk ji ca imaam ya di fa am ay taxawaay yu am solo bu dee ci sama càmmooñ maa ngi mi ngi ma fi féete Serigne Mamour Hamdi moom it di suñu mbokk di suñu xarit di suñu wóllëre waaye it di koo xam ne dafa bokk ci liggéey bi ba noppi boole ci boppam di ci jàpp saayu ne di boroom xam-xam comme li ma wax ci Serigne Issa rek moo nekk ci moom di bindkat di gëstukat rawatina ci tomb yu mel nii nga xam ne moom lañuy ñuy waxtaanee euh, di wax ne xëy na jotaay bi incha allah du mën a yàgg ndax xat-xat yi ñëpp nekk ci jamono ji ndax dañoo nekk ci jamono yu waajtaay waaye it barab biñ koy defee it bari ay jotaay yu fi war a am euh, nit ñi ñàkk jot lool ndax jàpp nañ ne safar gi moom wala 18 safar. juróom-ñett yi lu mu gën a jege rek jot gi di gën a wàññeeku yitte di gën a bari moo tax incha allah jotaay bi dañu koy gàttal bu baax a baax a baax tom biñ ci war a waxtaanee nag mooy yoonu murit ay cislaayam ak yenn yi nga xam ne mu ngi koy dëkk di mën a nekk ay gàllankoor ci niñ ko mën a tudde wala ay jafe-jafe yoo xam ne mi ngi ci ñu war koo waxtaanee war cee sottante xalaat war cee wut tamit ay saafara incha allah kon ngir ma bañ a guddal damay jox Serigne Issa kàddu gi mu nuyoo bu ñu noppee ñu jox Serigne Maam Mor ñu nuyoo boo defee ñu daal di dugg ci waxtaan wi Serigne Issa ñu ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayidina mawlana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa asna xadimihi wa man wala sëñ Abdul Qadir ñoo ngi leen delloo nuyoo di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ñëpp ci euh, télévision bu am solo bi di ndokkeel ñëpp itam ci weeru màggu tedd wi ñu nekk di ndokkeel Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu mi nga xam ne moo ci liggéeyoon liggéey bi ci liggéey ba suñu borom defal ko ci lim ko ci defal di daan boroom borom mu yokk ay mayam ak i xéewalam yokk ay darajaam itam ak jegeem ci moom te yegg ci bis ba ak jàmm taxawee ci ni ko sëriñ bi bëggee te dajee ngërëmam dafa ko waat kaw di bari barkam Cheikhul Xadim amiin jërëjëf sëriñ Issa sëriñ Maam Mor chaîne bi di nga xam ne moo nekk fii ci jumaay Tuubaa ji di jokk suñu kàddu foofu ngeen ko jokk rek di nuyu jullit ñëpp leen ziar di leen ndokkeel waaye di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy suñu kilifa di kilifa di kilifa ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi aju ci sëriñ bi muy Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ko ñaanal suñu borom yàggal ko fii te li ko wér te mottali ko yéeneem ba li mu fas yéene liggéeyal sëriñ bi yëpp mu def ko ci anam gi mu ko bëggee ba ci saxlu koy njortam incha allah mm-hmm. di ci weeru tedd bi nag jërëjëf. ok jërëjëf euh, sëriñ Issa jërëjëf sëriñ Mamour ci kàddu yu rafet yi nga xam ne moom ngeen doore waxtaan wi euh, ñuy wax ne kon yéen a ngi ñu topp ci MK yi muy Muxaddamatul Xidma di chaîne bu jumaay Touba ya xam naa fi ñuy njëkk a doore mooy ginnaaw dañoo wax léegi ne bi ñuy waxtaanee mooy yoonu murit ay cislaayam ak xëy na ay dëkkam mooy yi nga xam ne mën nañ ko jàppe ay jafe-jafe yoo xam ne war nañ cee teel a xalaat euh, di ànd ak moom ngir xool nañu koy saafara bala ñoo dugg ci cislaay li kon dana rafet lool ci njëlbeen ñu xam ne lan mooy yoonu murit dëgg la du neex a xam ne ndax li ci lim ëmm dafa bari lim làmmool dafa bari waaye it li ci aju dafa bari lool moo tax damay jox sëriñ Isaa ci kàddu bu njëkk gi bu ko defee ci tënk gu tënku lool rek mu wax ñu lan mooy yoonu murit ci buñ ko mënee jox benn définition muy benn xam ne bu gàtt. si sëñ Abdul Qadir yoonu murit euh, ab tariqa la ci tasawuf di am ngir moo xam ne Cheikhuna Alxadim radiallahu anhu la ko boromam jox mu jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu am digalul woote. woote jëme nit ñi itam ci jaara leen ci yoonu yàlla ngir jëme leen seen boroom ak ñu am ngërëmam muy yoon woo xam ne nag ci biir biirum tasawuf mu mag mi ci la nekk doon yoon woo xam ne itam léppam daa tege ci sunna si yonent bi salaam ba dara ko doon loo xam ne itam ci jamono jim dikkee dafa ñëwoon itam ngir yeesal lislaam jépp ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir yeesal googu doxeenu tasawuf ak doxinu gaa yu baax ya doon it yoon woo xam ne dafa dajale euh, mbóoti mboolem yoon ya nga xam ne ñoo ko jiitu woon lu jiitu muy feeñ ci ku baax ki loolu daal mënees na koo tënk xaj na ci buñ doon tënk xam leeg yoonu murit euh, doon loo xam ne nag jaar na ay jaaruwaay yu bari euh, tàmbale ab tàmbalikaay jaar ci ay jaaruwaay ba mujj toll ci dayo bi xam ne ci la toll ba mujj mat sëkk xam naa loolu war naa mën a doy ci ab xam na xaj na. ok jërëjëf Serigne Issa comme dafay mel ne lii Serigne Issa wax bu ñu ko déggee rek mooy yoon wi dafa am lu ko tax a jóg tarixa muridiya al muridiya bu ñu ko waxee dafa am objectif lu ko tax a jóg muy defar nit ki waaye dafa am mën xëcc dafa am méthode bu mu koy jaare euh, dafa amit koo xam ne moom mooy defaree ci ni mu ko waxee yoon la woo xam ne indiwul dara lu génn lislaam indiwul dara lu génn tasawuf waaye dafa nekk yoon woo xam ne dafay duggaat ci biir lislaam dafay duggaat ci biir tasawuf sëñ Maamoor xam naa kon sama laaj foofu fi mu jëm rek mooy ni sëriñ Isaa xamle almuridiya mu yoonu murid ci nim ko waxee mooy wane ne génnut dara ci lislaam génnu it génnut it dara yi tasawuf waaye dafa mel ne loolu bu ñu ko xoolee ak suñu déggiinu tey liñ bëgg a jële yoon wi ber ko nële jàppee ko yëfi boppam loo xam ne xëy na ñu baree bari ci lañuy jaar ba léeg-léeg am sax kàddu yoo xam ne dañ ko mën a teg ci kaw yoon wi ci di ko jaam ak yu mel noonu bu ñu delloo tamit ci biir nit ñi li ñuy dund dañ gis ne kenn ku ci ne am nga sa dégginu bopp boo déggee yoon wi boo demee ca borom xam-xam dañ lay wax ne mooy yoonu murit xëy na du bokk ak boo demee ca ña nekk ca bitti di doxe seen sago lañ lay waxe ne mooy yoonu murit boo demee ca daanukat ja lañu lay wax ne mooy yoonu murit ak boo demee ca ñi nga xam ne ay jàmbur la loolu lañ lay wax ne mooy yoonu murit est-ce que loolu jàppoo ne lu ñuy dëkk la ab taxaddi la ab défi la boo xam ne dañ ko dañ cee war a taxaw jàngat ko bu baax a baax waaw kay jërëjëf sëñ Abdou Khadir ñoo ngi lay sant bu baax di sant sëñ saa ci xamle bu tënk bu leer bi mu def macha allah ci yoonu sëriñ bi loolu lépp mu ngi tënk rek ci nekkoon li sëñ bi woote lislaam rek la lislaam la ju leer joo xam ne boo delluwoon ci lan mooy lislaam mënut te génn lii sëñ Isaa wax kon li ci njëkk déggee mooy ñu tuddee ko tariixa loolu ci biir tasawuf la waaye bu loolu amutoon it mën nañ ne sëñ bi lislaam la woote lislaam ju leer nañ joo xam ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi bu tëdd bi li mu doon woote bi mu fi nekkee sëriñ bi loolu la woote mm. te loolu lépp li ko tax a jóg rek mooy xettali nit ñi ëllëg ngir ngërëmu suñu borom ki nga xam ne moom lañ sàkku si woon bi ñu ñëwee fii ñu mën koo am niñ ko niñ ko séwoon kon loolu lépp mën naa tënk rek ci li suñ Muntaxa di wax saa su ne ci i'laa kalimatillahi al-ulya ci gàttal mooy xamle rek ne suñu borom fii lañ ko war a teg nii lañ ko war a jàppe te ci yoon wi lañ ko war a aw muy yoon wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon murit googu nag nga xam ne déggin woowu lañ ci war a am ñi mi ñi ëpp ci murit yi déggin woowu lañ ci am mën ngaa fekk ay benn benn yoo xam ne nag xëy na mën nañ ci am gisin wu gàtt xëy na bu gën a gàtt mhm. ngir seenu ñàkk xam xëy na ku bokkut ci yoon wi mën na ci am weneen gisin waaye loolu dañ koy delloo ci ne rek murit gi ni suñ ñi saa waxee ne ci biir lislaam la nekk ci biir tasawuf la nekk kon yi gaar lislaamit bu gaaree yoonu murit du bett kenn mhm. ba fi mu ne nii am nañu nekk ci biir lislaam ñoo xam ne xëy na leeru ci ñoom anam gam wala leer ci ñoom donte ay jullit lañ dëggal yu bëgg lu baax am na ñu nekk ci diin it gisin wi ñu am ci lislaam bokkut ak yu ñu ci war a am loolu it la ko waral xëy na ñu gis ci ay benn benn ñu bokk ci lislaam ñu taxaw taxawaay bu bokkute ak bu lislaam ñu ñu jël ñooñu àtte ci mbooloo mi donte loolu nag njuumte la ndax ay benn benn li ñuy def reesu ci àtte mbooloo mi murid yi ak murid gi moom bokkuñu murid yi ay nit lañ yoo xam ne mën nañoo wàcc yoon wi waaye murid gi moom ay texte la ak ay règle yoo xam ne ku ko bëgg ngay dellu ci ki nga xam ne moo ko fi indiwoon mu Cheikhul ci ko jàngate kon jàpp na ne daal murit gi dëgg-dëgg moom lu leer la loo xam ne sëriñ bi wax na ko yare na ci dund na ko laata mu fi jóge eh, bu fekkee nag am na kenn ku ci ñu ci am ay déggin yu wuute am na ñu ci am déggin yu leer nañ ci murit gi te ñooñu nag ñooy ñu donte nag bu amee kenn rek koo xam ne leerut ci na ko leer ba mu leer ci moom xam ne ñi ngi ci biti nag eh, ñooñu eh, am nañ moom ñun obligation maanaam warteef ci fexe ba yi fi leer ci seen seen bopp ndax sëriñ bi li kenn suñ suñ kilifa doon wax ne Cheikhul Khadim kenn du ko bañ dañ koy umpale mm-hmm. niñ koy umpale nag mooy dañ koy présenté nuñ ko war ko war a mm-hmm. ni mu waxoon ñenn ci mag ñi ne leen baa bokk lañ ci ñuy yàq sama der ñu ne ko fa suñ ko yéene mun leen yàq sama der fii ci man dem feneen di fa def loo xam ne neexu suñ borom wala buñ la gisee duñ la gis ci lu yàlla digle lu yàlla digle doo doo ko def doo ko baax ne leen loolu mooy yàq sama der mm-hmm. kon wane na ne moom niñ ko war a xamlee mooy ci ay jëf wali qaada ahbaban bihim uzhiru nuska kon daal ci gàttal jàpp naa ne murid gi moom leer na ci bopp murid yëpp benn benn a leeral ba am leer ci ñoom waaye murid gi moom lu leer la mhm. macha allah jërëjëf sëriñ Maam Mor mel na ne kon loolu mun ci woon a ñàkk ci li nga aj ci euh, waxi sëriñ Issa lépp di mot li waaye tamit di gën a leeral kon dafa mel ne kon ci déggin wi xëy na beneen dégg-dégg bu ñu ci mën a am léeg-léeg ci ñàkk xam lay tegu wala ñàkk a leer ñàkk leer gu mat ci bopp ñi nga xam ne dafa war a leer ñoom boobaa nag la cay saafara mooy dellu ci mbindum sëñ bi ci ku ca mën a dellu directement ku ci mënta dellu nga laaj ñi nga xam ne ñoo ca mën a dellu ñu gindi la ci bu dee ñi nekk ci bitti it xëy na jàppe yoon wi laneen wala ñu am ci yeneen déggin ñoo ñu xëy na seen gis-gis moo gàtt ci ni ko sëriñ Mamor waxee boobaa dafay nekk suñu warteef ñu jug nag war a yaatal war a gàgganti war a xamal ñi nga xam ne xamuñu woon Sëriñ Issa comme ni nga ko waxee yoonu morit nee nga bànqaas la ci lislaam lislaam yi kese la kon bànqaas la ci tasawuf waaye nag ak yeesal la sëñ bi lum yeesal lum yeesal maanaam foofu li ma fi bëgg laaj rek mooy yoon wi kon ci ban contexte jamono jim sosoo xëy na lan moo ko waral lan moo indi daal ñu ne lislaam a ngi nii tasawuf a ngi nii ba noppi di ñëwaat di indi leneen loo xam ne day tudd yoonu murit waaw kay jërëjëf suñ Abdou Khadir jërëjëf suñ Mamor euh, jamono ji nga xam ne ci yoon wi tàmbali ndax yoon wi nag faaw boobaa itam kon daañ càqale ne daa tàmbalee ci doon ab woote boo xam ne ab woote la aju woon ci beneen yoon waaye nag di di yokk ndax sëriñ bi nga xam ne moom la ko suñ borom feeñal ci loxoom mu ngi doon yokk ay jéegoom diggam ak boromam ba mujj yegg ci nag mu doon yoon wu beru woo xam ne ajootut ci wenn yoon banqaasootul ci dara yi fi boppam la jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam suñu borom jaar ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñëw ci moom euh, ci biir loolu nag ca jamono ji nga xam ne mooy tàmbali ba dafa fekk muy jamono joo xam ne ñaari jafe dafa amoon ci réew benn jafe mooy tubaab yi ak seenu dugg ci réew mi ak tasaaroo guñ fi tasaaroo ak programme bi ñu doon indi ci réew mi te yóbbu ko fu bari ci réew yi dem coloniser ko ngir bëgg fexe ba nit ñi moom bu ñu leen mënta génne ci lislaam cent pour cent itam ñu fexe ba def leen ay julli ñoo xam ne dañ ca yem bët set duñ am solo maanaam duñ xam diine duñ ko dégg jëfe ko waxi nopp euh, ñuñ ca mën a sax fànq moom ba jël leen dugal leen ci daa ñu ko fexe te loolu def nañ ci ab liggéey seen kam kàttan bu doon too nag effort yi Sëriñ Tuubaa yi gannaaw ndigal lu mu am ci yonent bi aleyhi salaatu wa ak effort yu mu def euh, man nga ne danañ gën a réussir lu bare bare bare bare bare waaye fànq na ci lu bare bare bare bare ba suñ jamono tey jii kon loolu benn la ci woon ñaareel bi itam mooy jafe-jafe yoo xam ne moom ci waa lislaam ci jëmam la amoon te mooy booba itam jamono la joo xam ne te loolu la ñu déggaale yeesal gi tasawuf itam dëgg la fekk na fi lislaam ay jullit fekk fi sax ñoo xam ne ay sufiyanki lañ sosu askanoo ci ay tariqa ay sëriñ ay kilifa fekk fi ñoo xam ne it faaw ñu bàyyi xel ñu ñu amoon na ñu ñu tege woon ci yoon loolu faaw ñu bàyyi xel buñ jàpp ne rek da jamono joo xam ne kenn baaxatul kenn jubut kenn ci yoon déedéet amoon na ñu tege woon ci yoon nekk ca lañu war a nekk loolu bari na ay mbir yu ko feeñal euh, ndax jamono ji nga xam ne sëñ bi cëree tukki tukkeem boobee ba dem wetu jolof xawma wetu kajoorati wet gum dem ba mu dëppee ñëw di wax maam Thierno naan ko dem na dëkk sàngam gis na fa ku tudd Ibrahima Ndiaye kooku bu buñ yokk suñuy jéego danañu raw kooka loolu firndeel na kooka mi ngi woon ci yoon ndax la tax sëñ bi naw ko bay wax ci moom loolu am na lu muy teg te lu mel noonu bari woon na itam nag waaye nag ànd ak loolu itam daa bari woon lool ci mbooloo mi te toujours àdduna noonu baaxoo def ñoo xam ne dañuy askano ci biir tasawuf noo ci tariqa ñenn ñi doon sax ay kilifa ca tariqa ya waaye xam-xam ba matut taxawaay ba matut ci wàllu jëfe ak wàllu ko compétence ba moom waxaalewuma ko mooy compétence ub parce que tasawuf du rek jël ay nit di leen jox ay wér dañuy wér dugg dégg bëccëg te mën nañoo wér di téeméeri junni at dara du xew waaye tasawuf dafa laaj euh, roogu sell gu mën a yéegi ay nit bañ jóge barab yegg barab loolu la laaj te loolu nag manqué woon na moom ndax loolu duy caaxaan loolu yombut kon loolu ci jafe-jafe yi amoon la ci jamono jooju tax ñenn ñi exploité euh, cër yi ñu am ci société bi ak wàccuwaay yi ñu leen jox exploité ko ci wàllu adduna di ko jariñooy nit ñi euh, ñenn ñi di wër di laaj di waxtu nekk di teg nit ñi ay sas di di di jël ay nit di leen yóbbu seeni daara di leen exploité ci yeneen anam ak yu bare bare bare bare ñenn ñi exploité wàll googu ba mujj dugg sax ci ak njabar di di jëfandikoo ay mbir yoo xam ne dañu mujj yegg ci jëfandikoo njabar gu leer nañ ñi koo xam ne moom njabar la boole ci itam ñenn ñi di di di jéem a waxtu wu nekk jege-jegelu buur yi ngir am ay njariñ ci seen digg ak ñoom euh, ku am xam-xam sa yitte day nekk ci noo mën a fexe bañ fa laqaat walla ab euh, conseil yi wala nangam-nangam xeet yu mel noonu ay jafe-jafe la woon yoo xam ne ci jamono ji sëriñ bi woote da doon jafe-jafe yu taxaw yoo xam ne moom ñëpp a doon jàkkaarloog moom te yooyu nag mënut a ñàkk lu ko saafara loolu nag borom xam-xam yi li ñuy wax muy lu ñu am solo mooy sunu borom tabaraka taala euh, ñaare ñiy soppi loolu dañoo xam ne ba ci yonent yi sax noonu la demee yonent yi alayhim da cee am ay yonent yoo xam ne dañoo soppi jamono am ci yonent yoo xam ne donte ne yonent la ñu waaye nag soppiwuñ jamono loolu noonu la ko yàlla séddalee ñi nga xam ne nag dañu doon ñuy soppi jamono suñ borom toujours di leen di lay taayalal seen seenu ñëw ba jamono day dem ba toll ci rëng-rëng am melokaan woo xam ne ñi gis tey xool ak setantal ñëpp ay jaaxle xam ne soppi war naa am defaraat war naa am foofu la yàlla indee yonente ba mu daal mu soppi jamono ni mu ñëwee ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ni mu ñëwee ci Seydina Muusa ni mu ñëwee ci yeneen ci ay yonent ni ki noonu itam noonu la borom xam-xam ne loolu yëmut ci yonente kese waaye ba ci nit yàlla yi ñëw gannaaw bi noonu la ko yàlla defee ci ñoom ñi nga xam ne suñu borom daa namm ci ñoom ñu doon ñu war a mission war a soppi adduna jamono noonu lay demee faaw day am laytaay loolu bokk na ci li waraloon kon laytaay jooju am ci jamono sëriñ bi ba sëriñ bi mu ñëwee soppi ab diggante bu gàtt gàtt gàtt ñëpp yëg ne kii moom mi ngi soppi lu réeree ci société bi ba nit ñi dagge fu nekk ñëw ñëw dëgmal si ko ngir bëgg a bokk ci ña soppi ko guddi jeexital ci ñoom ñami jariñ ok jërëjëf Serigne Issa kon leer na nañ yoon wi ni mu sosoo mooy kon dafa mel ni dafa ñëw euh, jàmmarloo ak programme bu fi nekkoon boo xam ne am na ci loo xam ne dafa jóox am na ci loo xam ne dafa dafa dafay juddoo ci jëmmam euh, muy ñaari programme yoo xam ne bu ci ne day wuuteeg la war a am bu dee bi fi joox mooy xëy na programme tubaab yi fi duggoon bi nga xam ne dafay soqi ko mooy xëy na jukko yu naax saay ak jaxasoo bu wërta am ak ba comme ni nga ko waxee njabar yeek yu baree bari dugg ci kon bi mu ñëwee kon am na lu mu doon jàmmaar lool am na lu mu soppi sëñ Mamoor foofu kon dañ cee dégg ne sëñ bi am na liggéey boo xam ne comme ni ko sëñ Isaa waxee bi mu ñëwee ci diggante bu gàtt def na ko ba ñëpp gis ko liggéey boobu tey boo ñu ko doon tënkal mooy sëñ bi bi mu lim lim def lim réalisé ci ci ci jamonoom euh, lim fi dundalaat muy sunna soos nga xam ne moom la waxoon ne moom lay yeesal ak ni mu ko dundalewaatee ci naka la feeñee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo si wooteem bi naka la feeñe ci seeni waxiin ci seeni jëfin ak tamit ci seeni euh, xay na doxalin moo xam muy doxalinu àdduna yu ñu séq ak doomu aadama yi wala muy doxalin woo xam dañ koo séq ak seen borom ok jërëjëf sëñ Jili jërëjëf sëñ Isaa ci leeral gu am solo gi Eh, bu dee Cheikhul Xadim radiyallahu anhu noonu ko sëñ saa waxee rek la li ko fi indi woon rek wala li mu fi indi woon mooy dafa amoon ndigalul woote mhm. yoon yàlla ngir xettali nit ñi noonu kuy sëñ Bachir di waxee ne ci la nekk ci noonu xataa fuja bi am rin min ba ndigal nag jugee ko ca kaw ci ne ko nag am nga ndigalul woote eh, muy loolu rek nazan yi wa laysa minni yanzion wa inni bi ximan wa mafzan zalika fadlullahi yutihi allazi yashauhu waxaala li xul bi lose mooy mu am ndigalul nag woote ci nag ni képp ku bëgg mucc képp ku bëgg a am tawféex ëllëg làquwaay man ab làquwaay laa ab wéeruwaay la ab muccukaay la te loolu ndigalu suñu borom laa am ci wax ko ci la sëriñ bu wootee woote boobu ci anam gi ñu ko xamee rek ci Mbàkke Kajoor ku fi jàng rek indi woon na dem jàngi ku bëgg liñ ku bëgg liñ bëgg nag mën naa ñu ñu ñu dem ba sëñ Mat Lamin na ñu ëpp ci mbooloo mi dañoo demoon ba ñu gën a néew ñoo fa des ñu ñu néew ñooñu nag ci la ci la ci la yoon wi sosoo euh, sëriñ bi daal di ànd ak ñoom ci lislaam ju set euh, joo xam ne mu ngi tënku ci li ñu xam ci lislaam rek wéy ñoom ci noonu teguñ ci ab diir bu gàtt ñu gis ay résultats ba boo xoolee sax fi mu ne sëriñ bi boo bëggee xam lii sañuy saa wax lu am solo la maanaam ak lu mat a bàyyi xel la mooy sëñ bi lim defar bari na lool waaye am na ñu baax ñu ne woon ci réew mi euh, loolu lu mat lu mot a bàyyi xel la waaye boo bëggee xool maas bi mbooloo mi ñi fi ñu fi sëriñ bi dajal ñu ëpp ci ñoom gisi ni ñi amoon moom mën nga koo gis ci fenn ci mbindum sëriñ bi lu mel ne xaalu safihun xaalu liyarkan ak ilhamu salaam yooyu moom di nga ci jàngatee ñu ëpp ci mbooloo mi gisin yi ñu amoon ci seen digganteeg buur yi fi nekkoon ak gisin yi ñu amoon ci pañutum àdduna xam ne kon sëñ bi mën nga ne boo doon boo doon waat trajectoire bi mu jaar man nga ne fi mu fekk nit ñi mooy ci xaalu safihun xaalu li yarkan ilhamu salaam nga gis mu woote yoon wi kon ci déwén si mu ñëw Mbàkke Bawol taalif fa masaalikul jinaan ndax daa indi woote ku indi ab woote liñ baaxoo xam mooy di nga ko yaxal ñu xam lii ngay woote lan la nga théoriser ko daal di kon mën nga ne tawat ji mu fekk mu dal nit ñi mooy li ci xaalu safihun xaalu li yarkan ak ilhamu salaam ordonnance bi mu indi mooy mooy masaalikul jinaan Masaalikul Jinaan boo xoolee muqaddima la ci def ak ñetti bunt bunt bu jëm ci xëy na jihaadu nafs bi ci topp di taxliya rikk ci jikko yu baaxut yi beneen bi taxliya jikko yu baax yi fadaayil ak yooyu waaye ñaareelu bunt boobu nga xam ne tawati xol yi ci nekk sëñ benn par benn la koy jël di ci def lu raar ci mbindam mooy tawat jum ci indi danaan tawat ji ku ko bëgg a xam auto diagnostic sax boo ko bëggee def boo seetloo ci sa bopp nangam ak nangam ak nangam xamal ne tawat sàngam dal na la mhm. ko bëggee faj defal nangam ak nangam nangam kon ordonnance bi mu indi ngir ñu fajoo ko mooy Masaalikul Jinaan nga xam ne ci Mbàkke Bawol la ko taalifee ñaar wala ñetti at bi mu wootee yoon wi teguñ ci diggante bu gàtt ci ay yasashin rek nga gis mu tàmbali nag di génne ay raa yi ak ay xoqal bu bu kaaw yooyu nga xam ne sëñ Basiru day wax sax ne sëñ bi da ci doon tawriya day mel ne da ciy wax ay nit ñu jàll ñu baax waaye mën na sa ci déggee nit ñi mu ànd lay wax nga xam ne kon moom ñi mu jëlee ci xaalu safi hun a xaalulu yerkan masaalik la leen jàllale leen ci raa yi kon sëñ bi ñim ñim li mu indi ci ci résultat mooy loolu loolu dinañ ci jàngate ne kon sëñ bi mission bi mu amoon lu yaatu la du woon rek defar nit ñi ndax yii moom laata muy dem ci géej gi la ko la la ko defoon yii may wax nii bi dëgg-dëgg ci ci ci géej gi la ndax wa azharal xidmata a jaysashi wa qalbuhu admaraha min ashashi ndax waxoon na liggéey bi dëgg-dëgg ci atum junni ci atum mille trois cent treize la ko la ko mille trois cent la ko la ko bëggoon kon sëñ bi bi ne bërët gis tubaab yeeg niñ mel mu xam ne danañ dal ci kawam dafa wut ñu defar nit ñi muy ñim seexal mu dem jàll ci meneen mbir moom dafa defar ñu defar nit ñi moom mu jàll ci liggéeyam nag nga xam ne kon defar nit ñi ab partie la ci li sëñ bi doon liggéey waaye liggéey bi mu doon liggéey si moom lu yaatu la loolu day feeñaat ba ci njaareem kooku ñëwoon sëñ bi ne ko loo bëgg mu ne ko ku ma defar laa bëgg sëñ bi ne ko nag defar dafa laaj ak taqoo def ne dama amatut ak jot ne ko waaye da xool kenn ku ma defar nga dem ci moom mu defar la dem a ne ko Balla Fall defar naa ko nga xam ne kon sëñ bi ñëwatoon ngir defar nit ñi daa ñëwoon ngir yu bari ñun xamee ne contexte bi nii mu mel dana indi ay jafe-jafe mu defar ñu defar nit ñi décentralise mbir yi jàll ci liggéeyam moom ci tënk bu gàtt daal mhm. ok jërëjëf sëñ Mamour mel na ne juñ nga ay tomb yu baree bari yoo xam ne mhm. benn bu ci ne mat naa taxaw waaye mhm. waxtu yi duñu ko may wax nga euh, fi ñu mën a jàngate système bi tubaab yi yoroon ci ñetti euh, xasida yooyu nga ko wax ñetti téere sëñ boobu waaye wax nga solution bi nga xam ne lu ci baree bari dëxañu na ci biir Masaalikul Jinaan waaye dafa mel ne sax biir Masaalik sax même biir Masaalik sax boo xool juñ na ci yenn ci yim fi yim fi fekkoon rawatina yenn sëriñ si nga dañoo jàddoon aw yoon seenu melokaan ci seen digganteeg nit ñi seenu melokaan ci seen digganteeg suñu seen borom seen melokaan ci di seen digganteeg alal ak àdduna yooyu yëpp juñ na ko ca muy yu am solo waaye li taxoon a jug sëñ bi dëgg dëgg dëgg nga xam ne loolu daanaka mooy waxtaan wi mooy at tariqatul muridiya usuluha jëm li sa li li taxoon a jug sëñ bi dëgg dëgg war nga ne yemutoon rek ci waruñ koo déggee mel ni mbir rek ndax jëmmi sëñ bi moo demee noonu moom moo moo moo yaatu ci ay ci ay mbiram moo yaatu ci ay gisinam waaye moo yaatu ci ak jagle ba nga xam ne daanaka xajoo na lépp waaye tamit lu ñëw rek mën ngaa dugg ci biiram te boo ca duggee mën na laa mën na laa boot mën na laa roggante ni ko suñ maam moo waxee kon am na solo ci ñu déggee eh, yoon wi noonu kon daal lu fi ñëw la am lu mu fi fekk am lu ko tax a jóg mu jël ca mu jël ko fexe ba eh, jël programme am seeyal ko ci biir nit ñi ba nga xamee ne bu ñu bu ku ko xool ci ñoom rek gis ko mm-hmm, mm-hmm. ndax li nga wax noonu am na solo ci eh, xoolal koo xam ne defar naa ko nga dem mu defar la ba mu yàgg mu joxañ ko kenn ci jëmm yooyu kon loolu dafa doon wane ne kon woote bi moom am na résultat ci bi bi fi sëñ bi nekkee mm-hmm. am na ñoo xam ne defar na leen ba boo leen gisee xam ne ñii sëñ bi lañ mm-hmm. maanaam ci wàllu defar loolu sëñ Mbàkke Bousso wax na ko kaneen ak wax na ko yar na mm-hmm. suñuy ruu ak suñuy yaram ba nga xam ne képp koo gis léegi mat na sëkk saafin wanaa ay waaye sëriñ Isaa kon bu ñu waxee yoonu murit gannaaw bu ñu xamee mooy lan ak it li ko taxaw a sosu lan moo ko taxoon a jóg yoon lañu wax tariixa lañu wax du ñàkk foofu sax xëy na da ci njàmbaas ndax eh, léeg suñuy mbokk gëstukat yi am na ñoo xam ne dañuy am xaw a am day xaw a diis daal ñu ne yoon wi tuddee ko tariqa <laughs> nangam ak nangam am na yuñ ciy wax am na ñoo xam ne baatu tariqa bi duñ ci nangoo jaar ndax yoon wi kon léegi tariqa la bu dee tariqa xëy na du ñàkk moo am ay ay ay ay ponk yoo xam ne dañ naan ci yii ci la basé wu yii mooy ponk yi nga xam ne moo ko moo ay mooy kene yi nga xam ne moo ko moo ko taawu léegi ndax yoon wi wala boog ndax murid gi ab tariqa la ak bu fekkente ne dafa nekk ab tariqa ndax am na ay arkan wala ay ponk yoo xam ne tey moo ko taw ci gàttal. jërëjëf euh, sëriñ si ci kàddu yu am solo yi suñu Maamoor euh, kàddu gi am na solo lool macha allah bari na lool la ci dañ ci war a waxtaane lool sax te war koo jàngat. Euh, waaw murid gi ab tariqa la ab tariqa la. daa tolloog rek nag léeg-léeg euh, àdduna daa am nu mu ba euh, bari na lu am solo lu leer lu wér loo xam ne am na ay nit ñoo xam ne dégg nañ ko nu bokkut ak nam demee wala ñu ñàkk ko dégg tax ñu ñaawal ko wala ñu xatal ko wala jox ko melokaan wax du melokaanam ba ñeneen jeexitalu ca déggin yooya tax ñoom itam loola mel na loola ñu wéy di ko répété bu ma bëggee wax leeral li ma bëgg wax dëgg mooy euh, daanaka wax ne yoon wi du tariixa moom euh, ñàkk dégg luy tariixa dëgg-dëgg rek daanaka la ci gàttal sabab bi loolu la ak jeexitalu ci xalaat yi ñoo xam ne itam nag dañoo yàgga wax ci tariixa ay wax ndax dañ fee jaaroon ab époque boo xam ne ci gannaaw lu bari ci li tasaaroo ci téere yeeg bind yéeg yu baree bari jeexit yu mën def caaraax euh, xam naa bëgguma ci dugg di ci yaatal lool ndax du sunu waxtaan waaye li wér mooy buñ delloo ci lan mooy tariqa moom ci tasawuf faaw nag daa aajo ñu xam ne tariqa système la manhaj la doxin la ngir la loo xam ne lu yàgg la ay siècle la dox ci ba njëkk am ñu xam ko ba ni mu yegsee ci jamono sëriñ bi loolu nag du doon ne dañuy gis benn tariqa rek ci yi fi jaar wala ñaar mu am nu mel ci ñi ko ñenn ñi dégg sax te dëgg-dëgg sax demul noona ñu jàpp ne kon léegi ni ñu waxee ne bee na a mel donte na sa dëgg-dëgg di mu waaye am nañu ko dégg noona loola tax ñu jàpp ne kon buñ nee tariixa rek faaw noonu lay mel loolu de yëfi di mu wut noona tariixa dafa yaatu dafa yaatu tariixa lenn lu xat amu ci ci gàttal ci bu ñu xamee lan mooy tariixa lenn lu xat amu ci ba ci ñiñ koy tumaal sax seeni tariixa ne ñoom dañoo lii dañoo laa ñàkk xam waaye ñu xamee la ci biir dëgg-dëgg xam ne xat amu ci xat amu ci Euh, te yooyu yëpp nag bu ñu jaajawaatee ci yoon ci sëriñ bi ci wooteem bii yoon wii surtout gannaaw bu euh, soppiku yooyu amee wala tatawuraat yooyu amee ba fi mujj dañuy gis ne lépp la ciy nekkaat ci gàttal mënees te dégg lan mooy tarixa xam ko xam histoire tarixa fi mu jaar wuute ci am ak soppandiku yu ci am ba noppi ñëw ne sëriñ bi li mu woote du tarixa loolu mënut a nekk maanaam mënut sax daal ci xam-xam la bëgg wax. léegi nag li ci des mooy euh, muy ab tariqa suufiye wala muy ab ab woote bu nit woote wala lu mu mën a doon bu dee lu tege ci yoon rek faaw dana am ay principe ak ay fondement yoo xam ne ci lay tawax ci lay taxaw ay cosaan daal yu ko yu ko yu ko yu taw téye ko du mën a ñàkk mooy li suñu maam moo doon wax léegi ne murid yi ak murid gi waaw murid yi moom ay nit lañ di askanoo ci yëf yi mën na ñoo mel noonu mën nañ ñabale mel waaye ñoom loolu seen ñoom la concerné ñoo responsable léegi ne waaye jëmm yoon wi moom ñu ngi ko waxee léegi ay texte la ak ay ak ab xalaat bu leer daal lu lu luñ teg la daal lu leer loo xam ne nag ku ko bëgg xam xam ci Sëñ Tuubaa ngay dellu radiallahu anhu ak ñoom yaroon bokk jàngal leen ñu xam dëgg-dëgg yi la mu wooteelu moom sëriñ bi ci moom moo waxal boppam ne maanaam bu ñu wax cosaan yi dañ koy a xaaj ñaari anam loo xam ne ay usus lañ koy tuddee maanaam ay fondement yoo xam ne dañu wax ne bu doon murid gi dafa mel ne ab tabax bu ñu tabax dañ naan moo doon fondement bañ tracé woon ci suuf ba noppi jël néeg bi samp ko ci kawam nga xam ne moom mënuñoo tàqali ko ci genn anam loola sëriñ bi dafa wax boppam ne ussu tariqati al imaanu bi tawxidi wal islaamu bil fiqi wal ixsaanu bi tasawufi banqaas wala astafurullah euh, cosaan yi nga xam ne fondement yi nga xam ne ci lañ tabax yoon wi te foofu bi ko sëriñ bi wax sax foofa it ngir sàmmonte amaana at mais a wax ci sama déggin man yoon wii rek waaye tariqa suufiya la tax moo tax muy wax maanaam doxiinu tasawuf ci histoire am ba fi mu egsi ca la ca wér waaye loola bu ñu ko waxee ne lii mooy ay ay fondement am mooy murid gi day duggaale ci biir loola ndax loolu moo amu murid gi euh, ni nga xam ne buñ ñu ne arkaanul islam juróom la nangam ak nangam loola murid gi da ciy duggaale yeneen tarixa yi des yëpp dañ ciy duggaale ndax ñoom ñëpp a bokk nee na ba ci jiitu mooy gëm yàlla gëm gu wér goo xam ne dañ koy gëm gëmee ko ni ko xam-xamu nga xam ne képp kum a doon buñ bëggee xam ndax gëm na yàlla gëm gu wér wala gëmul yàlla gëm gu wér dañuy dellu ci xam-xamu tawxiid moo ñu àtte nit kii itam lii suñu Muhammad doon wax léegi ci feebar yi ba tey nit kii itam bu bëggee xam ndax gëmam yàlla wér na wala wérut day dellu ci xam-xam it borom xam-xam tawhid liñ bind ca nattee boppam bu dëppoog loola moo xam ne kon ngëmam wér na bu dëppoot ak loola mu xam ne war naa li jënti ci waatu ngëmam ngir jëm koo wéral ndax dese naa wér bi ci des mooy euh, loolu nag sëñ bi def ci lim ci def itam ndax waxuñu ko yam ci waaye da cee boole bindal ñu ay téere ci tawxid wan ñu ba ci xeet école tawxid yi école bi mu tànn moom bindal ñu ci lu bari ci ay téere bàyyil ñu ko fi ba euh, sëriñ bi bi ko leerale noonu itam yëmu ci waaye dafa bind ay téere ci tawxiid wan ñu itam ci biir école yi tawxiid yi ci lislaam bi mu tànn tànnal ñu ko itam ba mu leer ci ñun naññi ñaareelu fondement bi mooy al islaamu bil yi mooy nangul sunu borom tabaraka wa taala ci nangoo jëfe ndigalam yi ak bàyyi teram yi ci suñuy cër te defe ko ni ko xam-xamu fiq jàngale ci biir fiq itam sëriñ bi tànnal ñu ab école ci biir école yi fiq yi boo xam ne tànnal nañu ko muy al madhabul maliki yi mazhabul malik radiallahu anhu bu mujj bi mooy al ixsaanu bi tasawuf te mooy ixsaan te buñ koy rek mooy nit ki defar diggam ak boromam tabaraka wa taala ba mu war a tax mel na war a mel te jaare ko ci ni ko xam-xamu tasawuf jàngale di jàngale kon biir tasawuf itam am na ay école sëñ bi itam tànn ab école boo xam ne mooy bi mu tànn sóobu ci ba am calam ca am tànnal ñu boobu itam wan ñu ne bii ci ngeen di jaar ci biir mbindam lépp ñu gis ne génnul école boobee muy at tasawufu sunni kon buñ ñu dajalee loolu lépp dañuy gis ne kon fondement yi moom lu leer naññ la te lu ci ne sëñ bi bi ñu ko waxee ba noppi itam tënkal ñu ko boolewaat na ci liggéeyal ñu ci loo xam ne na mu ko waxoon ci leetar ba gannaaw bi mu ñu diglee sa diggalee sàkk xam-xam ba noppi warlul naa leen ay taalif boo leen demee loolu yëpp dañ ko ci fekk loolu itam fi alam noonu mu ko waxee noonu amee yii yëpp li ci mënta ñàkk boo demee ci ay mbiram da nga ko ci fekk na mu gën a mate na mu gën a rafete hmm. ok jërëjëf sëriñ Issa kon ci gàttal mel gi leeral nga ci ne euh, murid murid gi ab tariqa mënut a ñàkk ginnaaw système la ginnaaw mën xëj la mënut a ñàkk mu am ay ponk yoo xam ne moo koy taw nga xam ne dañ naan lii bu ci amul rek matut loolu nag leeral nga ko ci ni ko sëñ bi waxee te mooy ñetti ponk yooyu lenn lu ci ne sëñ bi joxañ nañu ci tamit fañ ca war a tënku ndax day ñetti ponk yoo xam ne dafa yaatu mm. sëñ Mamour kon loolu buñ ko déggee dañ gis ne kon sëñ bi leeral na lim nekk mooy lan dëgg-dëgg waaye loolu dafay dellusi si ci la ngeen njëkkoon wax rek mooy ne yoonu murit génnut lislaam génnut tasawuf waaw ak ak ak fa ngay jaar ci diggante bi te mooy fiq yaakaar naa ñett yooyu rek mooy mooy mooy li ëmbaat yoonu yoonu murit waaye moo amu tasawuf jëpp ndax tasawuf mënta ci lu dul fiq te fiq it balaa mat day fekk day am lu ko jiitu te mooy tawxiid sëñ Isaa juñu ne sëñ bi wàll googu def na ci liggéey bu rëy a mu ci wàllu tawxiid suñu diggante ak suñu borom fiq ni ñuy dunde ak jaamu yàlla ba mu jaar yoon ba mu wér waaye tasawuf nañ koy xoole yàlla ci lépp loo xam ne moom la def liggéey bi ci sëñ bi def ak tamit tey ni ñu koy dundee ndax dëppoo na ak it bu fekkente ne am na ay jafe-jafe yan nga jàpp ne mën nañ ko ca junj ak lan moo ko mën a saafara. waa koy Euh, ñoo ngi lay sant bu baax di yeesalaat ki gi di ko jottali yi Isaa ci leeral gi euh, Cheikhul Xadim radiyallahu anhu noonu ko sëriñ Isaa waxee moo ci nekk yoonam wi ci ponk yooyu rek la ko la ko teg loolu it bi mu ko ci tegee euh, tegu ko ci ci anamu noonu rek waaye da ko daa dund daa ko dundal daa ci soññu taalibe fu ñu toll bind ci lu bari jëf ci lu bari yar ci ci lu bari buñ delloo ci ay xew-xew yu bari yu xew ci ci ci ci digganteem ak taalibeem ak ñooñu saa su ne da daan delloo ci ci dëgg-dëggi tawxiid ci kenn suñu borom xam li moom ñu bàyyee ko ko euh, ñett yi sëñ Isaa tuddit ne mooy yi yi tënk lislaam muy iman islaam ihsaan te iman ñu koy jàngee ci tawxiid islaam ñu koy jàng ci fiq tasawuf ñu koy ihsaan ñu koy jàng ci tasawuf lu ci nekk sëriñ bi da ciy liggéey liggéey bu am solo soññ ci taalibe yi bu baax a baax a baax ci ne leen nañ dem sàkku ji xam-xam rawatina lu jëm ci pas-pas lu jëm ci seeni atte yi leen war ci li leen fekk gàll li leen fekk di leeral muy lu aju ci julli koor ak yi demee ni ko noonu ne leen nag gàddul naa leen ne dinaa leen indil euh, dina leen bindal ci yii ma leen digal bind ci ay téere yu baree baree bare suñ borom mi def ci barke bu baax ci téere yooyu ba léegi mu doon yuñ gis kon ci anam googu noonu moom buñ ci amee luñ ciy wax mooy ne sëñ bi moom yaxal na ci lu leer noonu la ko defee ci tawxiid li mbiri ci tawxiid kenn ba fi mu ba fi mu ne nii xamaguñ li mbiri ci tawxiid ni mu toll saa su ne ñu gis ay manzuma ak xasaay du mbind fiq lim ci bind am na solo lool bari na lépp jëm ci al fiqhul maliki soññ ci taalibe yi aleykum bil maliki fa innaha mutaharratun war ne leen soññ naa leen digal naa leen na ci jàpp tasawuf lim ci bind masaaliku jinaan rek buñ ci amoon nga xam ne mën nañ ne quintessence ay yu bari la dajale rek maanaam génne la ca la ca la gën a tënku la la waa jamonoom soxla mu jox leen ko mhm. lakinnahum kutu lakinnama kutubuhum li tuuli zahida fiha jullu hasal jili comme ni nga ko waxee ci njëlbeen gi mhm. kon sëñ bi yaxal gi am na yar ci njaboot gi mhm. gis nga rek euh, tawxiid waxin yu yu bari yim ciy wax gis nga xew-xew boobu bi mu amoon ci ci ci peste boobu doon laal nit ñi bi mu laalee ñenn ci waa kër gi ni ñu xamee sëñ beeg fi mu toll ci diggante ak boromam lii di dal waa këram ba mu àgg ci métit wi jaaxal na xëy na ñenn ñi bi romb leen cët bi ne leen da ngeen a foog ne xejjub yàlla mooy koo xam ne lu ko neex yàlla def ne leen xejjub yàlla dëgg mooy koo xam ne lu yàlla def mu neex ne te moom foofu la ne xam ne loolu mooy dëgg-dëgg tax delloo lañ suñ borom si wan leen ne leen mbir yi nag ci loxo suñu borom la ne gis nga ci tomboom yooyu mu doon tomb foofu mu leen di waxee ne leen suñ borom mooy xudratu mooy borom xudra ak iraada te yaram bakat bu ca xàccee kenn du ci tee Eh, suñu borom mooy borom xudratu ak iraada te yaram ba kat bu ko xàccee kenn du ca mhm. mooy kon saa su ne rek ci tawxiid ju sell ji mhm. ci la sëriñ bi mas di woote mhm. ba ci mbindam yi jazaawu shakur la atuuf ak yooyu yëpp boo koy xool ci yoonu géej gi fu mu wax rek dalee delloo ci tawxiid du leer kon sëñ bi moom lim lim lim jëmmal ci lislaam leer na mooy lislaam ju sell bu fekkee am na rek eh, loo xam ne lu ci dëkk murid gi la jamono ji xëy na mën naa bañ weesu rek ne nag mbind sëriñ bi yooyu nga xam ne sëñ bi moom dëgg la sëñ bi nekkul ci ay téere waaye nag yim bëgg nit ñi def ko moom def na ko ci téere yi te mbind yi bi da cee nag wax dëgg jàng ci téere yi yi ci ay jaar jaaram dangay gis ñu lay wax téere sàngam dañu ci nangam ngir am ko yónnee na ba dëkk sàngam ngir am téere sàngam gis nga ba ci bi muy sàkku xam-xam rek téere boobu nga xam ne sax amu ko daa am comme gis mu am ko mu dik ko àbb rek waaye da ko laaj foo ko jële ko ki ma ko jox daa am ko yoroon toolam muy bëgg a booy mu ne kuk ko bàyyil jël téere bi sëñ bi doog a nangoo jëfandikoo téere bi ndax nee na dama ci sàkk xam-xam barke laa ci bëgg du ma nangoo jël sax ne daganut kon sëñ bi moom téere yooyu li mu ci sonne woon lépp nag da koo sonnoon ngir ñu mën cee jàng te xëy gisin woowu moom am na ay benn benn yoo xam ne amuñu ko ci mbir yi jàpp nañu daal xam-xam moom ay deuxième la ci yoon wi loolu nag lu dab yoon wi la mbir la moo xam ne ci lii ci taxaddi yi la bokk maanaam lii dëkk lii dëkk ñeen ci yoon wi xëy sama classe bi Euh, moom la mu doon loo xam ne war nañ ci bàyyi xel xam ne sëñ bi bu ko bindee jullit ñëpp la ko bindal waaye waa këram ñoo ci ñoo ci jiitu ñu war cee def seen kem kattan rek ci góorgóorlu ci mhm. Mhm. ok jërëjëf sëriñ Mamour kon dafa mel ne bu ñu déggee li nga wax dafay wane rek ne kon sëñ bi léppam ci lu mu bind lu mu def ak lu mu wane lépp rek tawxiid la waaye lépp yu jëmmal fiq la lépp yu jëmmal tasawuf la loolu rek yaakaar naa mooy mooy gàttal waaye Serigne Issa bu ñu waxee ni yii mooy ponk yi te mooy eh, imaan joo xam ne dañ koy xamee ci xam-xamu tawxiid lislaam joo xam ne dañ koy jàngee ca fiq eh, ak ixsaan joo xam ne dañu koy jàngee ca tasawuf kon loolu ay xam-xam la yoo xam ne dañuy wommat ci dara ci loo xam ne dañ koo war a xam wala dañ koo war a jëf wala dañ ko war a mel xëy na bu dee lii mën nañ ko tuddee ay ponk am na yeneen nag yoo xam ne mooy accompagner ponk yi nga xam ne mënut a ñàkk mën nañ ko tuddee ay mabaadi wala daal yow xam ne mooy gunge yëf yi nga xam ne saa yu ca benn rëqee rek dañu jàpp am na ponk boo xam ne mën naa rëq yooyu boo ñu ko doon tuddal moom ci gàttal yan la ci nuñ ko mën a delloo ci mbindum sëñ bi. jërëjëf sëriñ bi euh, yooyu nag moom xam naa ne dana wuute na tuuti ak yi ñu a tudd muy fondement yi ndax fondement yi moom sëriñ bi daa ko bindal boppam ci ab leetar waaye bu dee nag yi nga xam ne dafa mel ay principe lay taxaw taxawaayu principe yoo xam ne bokk na ci li nit ki mën a natt moom itam ak muritam fu mu toll ak taalibeem fu mu toll ci wér ak ñàkk wér walla kaweeg suufe euh, moom nag ñu ngi ko jëlee ci anamuk topp mbind sëriñ bi ci kam li ci li suñ loxo liñ gis topp yu bare bare bare bare bare ci mbindi sëriñ bi gis ne néew na fu mu waxee ba wax ji xaw a gudd lu may ne dana tudd ñett yooyu wane solo su mu am yegg ba ci nekk ci géej ga di bind ab leetar njaboot gi fi desoon moom maam Thierno ak ñi mu nekkaloon ñëpp rek ak sëñ Mor Jaara magam ak dongo yi fi nekk yëpp ak njaboot gi mbokk yi di wax ak ñoom ba ci biir wax ja mu indi bayit woo xam ne da caa tënk loolu jamaalukum ilmun wa saayun wa adab fa laazimuha yunfa ankumul wadab euh, loolu kon day wane lu am solo la ci njubaa kuy liiru mbindam moom da xam bu baax ndax du wax mukk wax ju gudd te tudd ñett yooyu te dañeen di lëkkale ñett yooyu nag mooy al ilmu naafi al amalu saalix al adabu al mardi al ilmu mooy xam boo am njariñ al amalu saalix mooy jëf ju baax al adabu al mardi mooy teggi ñu gërëm loo euh, xam-xam boo am njariñ nag xam-xam boo am njariñ euh, faw ñu dégg lan lañ jublu ci boo am njariñ boo am njariñ day man a jógee ci ñaari anam xam-xam boo xam ne jëmmi xam-xam bi moo am njariñ benn moo xam muy njariñul adduna wala muy njariñu alaxira loolu lu ma ta xam la ndax sëriñ bi daa wax ci magaliqu niraan ne wa kullu ilmin bi manafia yafi bépp xam-xam bu mën a indi njariñ rek ci njariñ lu lislaam nangu na njariñ la nag moo tax ñuy wax waaye bu dee xam-xam boo xam ne njariñ li muy indi ci xelum nit la xaj na waaye lislaam dëkkarul ni njariñ la loola du njariñ lor lay doon ñaareel ba itam mooy faw itam xam-xam ba itam bu doonee bu mën a am njariñ moom jëmu ba noppi it faw mu doon bu am njariñ boo xam ne pas-pas bi moo koy laal ba tax mu mën a am njariñ te mooy bu ko di wut mu wut ko ngir yàlla ak ngir jariñoo ko ak ngir jariñ ci ay mbokki mi defam bañ koo wut ngir puukare wala ngir nangam wala ngir nangam ci ay bëgg-bëgg yoo xam ne yu suufe la bu loolu jàllee euh, kon ci loolu dañ nga ciy dégg ne xam-xami diine yi ak yeneen yi te soxla ko lépp ci lay dugg ñaareel bi mooy jëf ju baax jëf ju baax moom it sëriñ bi dafa baaxoo jëfandikoo baat bi alxuraan di jëfandikoo muy alxamalu saalix muy jëf ju baax waaye dañuy gis ne buñ delloo ci mbindam itam ak ci ay jëfam daa gis ne day mel ni jëf ju baax jooju mën nañ koo yàkkale ba nga xam ne day am ay xeet ci biiram benn bi mooy jëf ju baax joo xam ne day doon jaamu yàlla te mooy jëf joo xam ne day am maanaam diggante jaam bi la ak boroomam tabaaraka wa taala directement lu mel ne julli yi ngay julli koor yi ngay koor tudd yàlla yi ngay def yooyu yëpp nga xam ne sa digg ak sa borom direct loxol bi def jaaru ci waaye am na beneen beneen anam mooy boo xam ne dëgg la sa digg sa borom la waaye doonul jëf joo comme ni julleek woor ñoom ni mel waaye day doon jëf joo xam ne li ci gën a bari da koy jëfal mbindeef waaye sàkkuwoo ca pay gum la jox ci payu matière nii waaye da nga ci sàkku tuyaabay sunu borom tabaraka taala loolu mooy xidma nga xam ne Sëriñ Abdou Khadir mu toog di jàngale te yàlla tax ci loolu la dugg ay moroomi bindeefam lay jariñ waaye sàkkuwu ci fay guñ koy fay waaye yàlla la ciy sàkku wala ka yor euh, camion ba di bale wala ñu woote mbalem safar wala nanga mu ñëw di bale wala di tànk ay ndox di tuur wala lu mën a doon kooka la muy def nga xam ne defu ko ci koy defal seeni maanaam yoonam nekku ci ñoom buñ ko gisee baax na buñ ko gisul ñoo waaye moom yàlla rek la ciy wut laa ne la du minkum jazaan wala shukuran loolu mooy xidma ci la dugg beneen bi itam mooy li muy tuddee kasbul xalaal te mooy fàggulu lew te boobu nag moom day doon boo xam ne nit day jëf jëf joo xam ne lu baax lay doon lu dagan lu lislaam nangu defe ko na ko lislaam nangoo def ko itam ngir lu lislaam nangu waaye def ko itam nag ngir wut ca loo xam ne dana doon lu mën a suturloo lu lew lu dagan lu mën a fajaay yittee mën cee def ay jëfam loolu mooy fàggulu lew mooy li ñu tuddee liggéey waaye Sëriñ Tuubaa fàggul law lay wax baat bi itam di baat bu am solo boo xam ne baat bi daa am philosophie daal bu ci ne maanaam da wan ne la kon wutoo xaalis wutoo rek ngir jéem a sa bopp wala nangam waaye da ngay wut ngir wut lu law loo jëfandikoo te yàlla tax kon buñ ñu xoolee dañu gis ne ñett yooyu yëpp day dugg ci biir alamalu saalih bu mujj bi mooy al adabul mardi mooy teggin yu ñu gërëm loo boobu itam mooy ban mooy teggin yi ci ay xana anam la bi si jëkk mooy teggi ni dox jaam diggante jaam bi ak borom tabaraka wa taala teggi ni dox diggam ak boppam teggi ni dox diggam ak moroomi jaamam moroomi jaam nag daa yaatu du nit ñi rek waaye benn xaaj lañ ci biir moroomi jaam ay xaaj la diggante ak sëriñ bi sa diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa diggante ak sa moroomi taalibe sa diggante ak sa mbokki jullit diggante ni kekki waajuram ba mu jeex loolu yaatoo yaatoo yaatu la loolu buñ doon tënk daal manees naa wax ne ñett yooyu manees naa jàpp ne ay principe la yoo xam ne ci yoonu murit lu dul soppiku la te ku dellu ci mbind sëñ bi te jàngat ko baax yi dangay gis ne fu mu waxee dana ko tudd. Mm-hmm. ok jërëjëf sëriñ dafa mel ne waxtu wi moo ñuy dab comme neen xamee yéen a ngi topp waxtaan waajal safar gi ci MK TV xam naa sëriñ Mamour ci tënk bu ñu déggee li sëriñ saa wax dafa may delloo toujours ci wax ji nga waxoon al ilmu naafi' comme ni mu ko xam ne sëriñ Tuubaa xam ne na ko ci Masaalikul Jinaan wax ci yu baree baree bare bari waaye ni mu ko tënkee noonu rek la tënkoon waaye al amalu saalih ñetti dégg ñi nga xam ne mën nañ ko cee déggee muy jaamu yàlla sa digganteeg sa boroom ak it sa digganteeg sa moroom jaamu yàlla ci ay jaamam ak euh, euh, wut loo xam ne da ci mën a jaamu yàlla te muy kasbul xalaal yooyu yëpp mën na dugg ci al amalu saalih comme ni nga ko waxee waaye al adabul yi moom it sëñ bi gis nga ni ci sonne yim mu ci taalif ni ci yaree ak it jëf yu rafet yi nga xam ne wane na ko sax ci jëmmam ñu wan ñu ñu gis ko. Hmm. yaakaar naa digganteem ak tubaab yëpp al adabu mar bi da cee feeñ bu baax a baax a baax. système bi mu doxee yëpp it ba mu jugee rek digganteem ak waajuram ba ni ñu ko noppee gis lépp al adabul mar bi hmm. daf ca feeñ al amalu saalih moom kenn wax kenn waxatu ko. al naa fi moo tax ñuy waxtaanee ñu koy waxtaanee ba tey. Hmm. léegi ginnaaw sëñ bi def na ci lu mel noonu. yooyu yëpp am na ci ndax am na ci lu ñuy dëkk ci wàll googu ci nuñ ko war a déggee ak nuñ ko war a dundee. jërëjëf sëñ Amdou Khader euh, jërëjëf sëñ Issa ñoo ngi sant bu baax ci kàddu yu am solo yooyu. waaw loolu moom lu am solo la ñetti mbir yooyu ni ko sëñ Issa waxee rek noonu la demee ci yoon wi képp kuy topp mbindum sëriñ bi rek da ngay faral di gis mu koy tudd te bu leen di tudd li ci ëpp daleen leen di lëkkale. sëñ Issa tudd na ci bayir wu tënk woowu nga xam ne sëriñ bi mu ci géej ko bindoon ci ak xasida mu bindoon njaboot gi. muy jamaalukum ilmun wa saayun wa adab falaazimuha yunfa ankumul wadab mooy yéen kat seen seen seen li ngeen di liñ leen di liñ leen di nawee li ngeen di waaje mooy ñetti yi mooy xam-xam jëfe xam-xam boole ko ay teggin fu mu wax rek ñett yooyu da leen di leen di leen di boole tudd gis nga euh, al umuru ala salasati aqsaam al ilmu naafi wal amalu saalih wal adab wal adabul mardi ne mbir mi dem bi dëgg-dëgg mbir mi daal liñ ne ñett yooyu rek la xam-xam bu am njëriñ jëf ju baax teggin yuñ gërëm ay teggi nit noonu la ko sëriñ bi fonke eh, gis ngeen foofu muy tudd di nettaliwaat wax jooju di wane ne eh, yoon yi jëm ci suñu borom mi ngi bëree ne noomu mi def waaye ba ca gën a jege mooy ay teggi nuñu gërëm eh, aturuqul musilatu ilallaahi taala ala adadi anfasil xalaayiq walakin aqraba ilallah ala adabul marda yi ne wa tasawuf kulluhu adab yooyu yëpp di wane ne eh, sëriñ bi noonu la fonke woon yooyu yim ci bind gis nga na joxe daal xaaj nga xam ne taalibe yi ñoo ko sàkkoon ci moom mu bind ko eh, bu ñu taxawee ci ñetti mbir yooyu li ñuy njëkk a wax rek mooy sëriñ bi lu ñuy wax ay mafahim ay concept ay waxin yoo xam ne bu ñu ko waxee dañ cey dig dañ cey jublu lu lu rëy yooyu dafa yitteel sëriñ bi te it yi mu ciy defit da koy tànn dafay fekkoon ñuy wax ilm xam-xam mu dolli ci naafi di wax al ilmu naafi ñuy wax amal mu dolli ci saalix ñuy wax al amalu saalix ñuy wax adab day teggin mu dolli ci yuñ gërëm ne al adabul mardi kon dafay fekk ñuy wax xam-xam mu ne xam-xam bu am njëriñ ñuy wax jëf mu ne jëf ju baax ñuy wax ay teggin mu ne teggin yuñ gërëm bi mu ñëwee ci liggéey ñuy wax liggéey mu bàyyi ko fi dem jëli kasbul xalaal ni ko suñu saa waxee mooy sàggul fàggul fàggulu lew wala talabul xalaal wala iltimaasul xalaal nuñ ko mën a waxee xalaal ji moo ciy del saa nga xam ne kon suñ bi xalaal jooju moo ko ci moo ko ciiteel ngir la mu waxoon ne ku lekk lu dagan jaamu yàlla yomb ko ku lekk lu xaraam jaamu yàlla da koy jafe fakul xalaal in aradta an tutia allah wa rasulu yaa hadal mutia yooyu nag mooy yi sëriñ bi daa woote saa su ne mu ngi tënku ci bayit woowu sañu saa wax kon yéen taalibey murit yépp li ñu leen di nawee mooy ñetti yooyu mooy seen identité saa bu ngeen ko bàyyee nag yem ak ñëpp loolu nag ni ko sañu saa waxee moo ci am solo mooy ñetti baat la yu gàtt waaye yu tënk yu bari yoo xam ne buñ ñu ko doon tas di ko firi di ko taaraar man naa mën na mën naa ëmb lu baree baree baree euh, bëri loolu nag fa lillahi alhamdu wax dëgg euh, murid gi ñu ngi ciy góorgóorlu bu ñu ñëwee ci bu njëkk bi mooy xam-xam macha allah euh, li sëriñ bi bind ci xam-xam bari na bari na lool xam nga ñoom sañay saa ñi rek dajale nañ téere boo xam ne dañ ci dajale ci ay taalif sëriñ bi mën na ñaar fukk ak nangam ci ay téere xam-xam rek te li wér mooy yiñ yiñ yiñ defut lim ba ma war naa yooyu yoo xam ne ginnaaw bi lañ ko gis ak yoo xam ne ba léegi gisaguñ ko bu loolu jàllee taxawaay biñ am ci xam-xam yoonu macha allah rawatina ci at yi daayira taxawaay bi ñu am xam-xam bu fekkee ab défi amoon na fi it ñu ngi koy relever nag waaye yooyu yëpp nag bu amutoon bi Sëñ Muntaxa mujjee woote ñu ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér muy daaree xam-xam ji nga xam ne moom day jëmmal lenn ci mbébét yi sëriñ bi bëggoon mm. yooyu Sëñ Bàkke ba su doon wax gouverneur boobu di brevier naan ko kat ñun ñu àndoon ak sëriñ bi ñett lañ fi xam yu mu bëggoon. te te te te taxawulu ko ba nu mu fi jógee ñett yooyu boole na ci daaray alxuraan daaray yoo xam ne mbooloo dañ fay jàngee ne ko sax daara jooju. sàkkoon na téere yee fa yéen fay jàngee ba noppi dajale woon ci téere yoo xam ne mësuñu koo gis kenn ku dajale lu noonu ci fii ci gox bi yëpp. loolu nag kon bu ñu demee ba jamono ji ak ni jamono naqar yëpp crise be corona be yooyu yëpp teewul bi ñu yëkkatee mbir mi ak léegi laalu suuf te du laal suuf incha allahu taala ni ko suñ boo waxee woon bañ ko yëkkati kon loolu taxawaay bu am solo la ci relever défi xam-xam wane waat ne yoonu yoonu murit kat yoonu xam-xam la yoon la woo xam ne buñ dajale woon li mu produire waxuma sëñ bi rek waaye ñi génnee ci sëñ bi rek liñ liggéey ci xam-xam muy fiq muy tasawuf muy tawxid liñ liggéey ci xam-xam ci làkk yu wuute euh, ca mag ña doog a ñëw ci ndaw ñi loolu lu bare bare bare la mm-hmm. loo xam ne yokk nañ ko ci bibliothèque diine yokk nañ ko ci bibliothèque xam boo xam ne lii maanaam contribution yoonu murid la ci wàllu xam-xam kon xëy na defi xam-xam du fi jóg mukk ndax jamono day doxit maanaam defi yi doonut loo xam ne daa jomb kenn jombut lislaam kon du jomb yoonu murid ndax doomu aadama dafa taxawut doomu aadama day ak dundam lay def suuf si suuf si nekk di dund sax taxawut jant bi taxawut kon ñun suñu dund du mën a taxaw loolu sëñ Bay Jaxate waxoon rek ne ku ku toog ci luy jamono day waree nga ko àdduna day waree nga ko ku toog ci luy waree nga ko noo mën a def waree Mhm. loolu suñu saalix waxoon ne àdduna moom comme ab tëli la lu fi waay fekk rek mhm. tëli bi noo fekk mu mel ko nan ngay daw boo fekkee mu taal day tàlli boo fekkee pax ay pax nga fekk boo fekkee doo daan nit loolu nga fekk mhm. kon nag jamono ji ñu nekk jamono yi xam-xam la joo xam ne mbooloo yëpp dem nañ ba xam ne dañoo toll ci li maanaam loolu ñuy wax choc des civilisations nga xam ne ku ne fi mu ne idée idéologie lañ bëgg a samp boobaa kon ku ne sa identité moo la ci mën a génn loolu nag yoonu mu lañ ci mën a génn rek mooy dellu ci njàngaleem sëriñ bi te ci xam-xam bi moom wax dëgg ci at yi yëpp nag at yi yëpp rek daanaka ñaar fukk fanweeri at yi jàll am nañ ci taxawaay yu bees yu gën a yoo xam ne daay yokk ci yem fi fekkoon kon ci wàllu xam taxawaay boobu am nañ solo bu dee ci wàllu jëf alamalu saalih nga xam ne mooy jaam yàlla jëfe jëf lu baax ci anam gu gën a yaatu rek loolu it yoonu murit am na ci taxawaay am solo ñu ngi ciy góor góorlu seen kem kattan buñ duggee ci biir xidma googu seen saa wax kasbul xalaal Hmm, secteur bu ne rek boo xoolee tey murid ci wàllu liggéey ci biir réew ñi ci jiit lañ bokk hmm. boo ñëwee ci xidma yi ñu taxawal ci réew mi tey yoo xam ne lislaami Sénégal da koy bàkkoo di ko ndamoo te murid yi taxawaluñ ko lulul bi fadlil xidma ci xidma lañ ko jaaree raay bi ñu jëlee njaareem indi ko fii yi Tuubaa jii ñu nekk jumaay njaareem masaalikul jinaan université bi ñu taxawal ak yu yooyu yoo xam ne ci buntu xidma lañ taxaw kër Sëñ Tuubaa ak yooyu kon wet googu it mu di ñu ngi ciy góorgóorlu seen kam kattan mm-hmm. kasbul xalaal ñu ngi ci def seen seen kam kattan ba loolu dimbale na leen ba tey mm-hmm. corona yi fi jaar yëpp wane na ne yoonu murit eh, kenn amul ci ñoom mainmise ma ne su leen a forcé ci ne faaw ngeen def li lu ñëwul danañ ci xool la diine wax ñu def ci seen kam kattan mm-hmm. loolu lu am solo loo xam ne buñ buñ góorgóorlu ci loolu ci yooyu du mën a ne bu boobaa foofu nag défi bi li fi nekk rek mooy ñu fexe ba loolu ay akki la yu yoo xam ne waruñoo bàyyi mu rëccaat ñi kon nuñu ba ba suuxat ko ci biir xëy na boo amee defe ci wet googu lay gën a ne mm-hmm. waaye ci wetu ko ci ndigalu sëriñ bi moom murit bu ne jëfee ndigalu sëriñ bi moo la gënal sa bakkan moom loolu amul sikk te murit yëpp foofu lañ ne euh, kon foofu it defi bi xëy na mën naa bañ a weesu rek ñu fexe mu gën a mu gën a sax ñu mu doon luy wéy ni nga xam ne noonu lañ ko donnoo ci maam yi ba ni mu agsee tey mu doon loo xam day wéy mm-hmm. bu dee lu jëm ci ay teggi nit macha allahu taala murid yi am nañuy teggin lool te mm-hmm. àgg nañ ci léegi wàll nañ ko sax suñu mbokki jullit ñëpp rawatina ñu dëkk ci réew mi waxin yi nga xam ne murid yi ñoom lañ xam àgg nañ ci wàll nañ ko ñu bari ci réew mi te loolu am solo la am na baat yoo xam ne bu kenn duggoon fii ci saal wax ko rek dañuy xam ne gan la ñu dëkk am solo loo xam ne murid yi am nañ waxin yi ñuy wax yoo xam ne am na baat yu bari yu yu wolof yi di wax yoo xam ne wutal nañ ko baat yu ëpp teggin yu gën a dëppoog diine ñu di ko ko woowee te loolu daa dugg ci seen teggin boo duggee ci seen i jotaay nit ñuy fonkee kilifa da ciy feeñ Euh, boo ñëwoon ci benn jotaay mën nañoo ñëw ci saal fii yëpp nekk ay fauteuil kilifa gi rek mooy toog ci kaw ñëpp toog ci suuf yooyu xëy na dana wuuteeg ku xam li feneen la fa ne waaye ku xam murid gi da nga xam ne murid gi la ñu di mooy fonk kilifa nangu kilif teef te du ne tey ma yilif dañ ko naan tey nga yilif ñu mm. loolu am solo loo xam ne ay akki la yoo xam ne dañoo war a fexe mu gën a sax mm. euh, kon daal ci gàttal yooyu sañoy saa wax ay mbir la yoo xam ne wax dëgg sëriñ bi moo ko joxoñoon mm. murid di ñu ngi ci góorgóorlu seen kam kattan du ñàkk nag ay benn benn yu ndaw yoo xam ne dégg yi ñu ci am mën naa juunu waaye ñooñu nag bu mbooloo mi génnee dañ leen di suul ñooñu nag du teewut dañ leen a war di leen yeesaa su ne ngir ñu gën a xam ndax diine yi ñu nekk rek diine yi fàttali la da mhm. yonent bi ko waxoon ne ko del fàttali ndax fàttali day jëriñ jullit ñi mhm. te murid yi nag ci biir jullit ñi ñooñu gëm yàlla lañ ne mhm. kon mënuñoo am règle bu génn bi ñooñu nekk rek te ci àdduna lañ nekk ku nekk ci àdduna yi tënku ci règle yi rek waaye yoon la woo xam ne daal ku xool fi mu déparé woon xool mu jaar xool fi mu toll da nga am yaakaar ci lii ñëw insha allah salaamaaleykum macha allah jërëjëf sëriñ Mamor wax ji am na solo loolu tënku na it waaye liñ ci jublu woon am nañ ko ci muy ginnaaw sëñ bi moom nii la ko rëddee léegi nag nan lañ ko dundee niñ ko dundee wax dëgg yàlla feeñ na ci ay anam yu baree bari waaye fi nga tegtaloo ci e, jamono jii ñu nekk contexte bi ñuy dund ci wàllu tawat jeeg mbas meeg yu mel noonu tey rek maa ngi maa ngi ci koy wax benn kilifa naan dafa mel ne corona bi <laughs> yàlla sëñ Tuubaa la ko defal ndax lu baree bari feeñ na ci lu bare njort yu ñaaw yu baree bari jaar jaar nañ ci rafet fonk kilifteef geeg jël diine ji teg ko ca kawak ak nosu geeg lépp ñu koy ràbb di xool nuñ koy defee te itam diine da jaral ñu ñu ko ci lépp jiital ci suñuy bakkan ak taalibe daanaka yi ci feeñ dafa bari waaye ndamul ndamul sëñ biit feeñ ci ci bu wér a wér a wér xëy na am na ci loo xam ne du <laughs> neex a wax ci mbooloo waaye daal mm. eh, yéeme kon Euh, principe yooyu ni ko sëriñ sa waxee lu yaatu la loo xam ne tey bu ñu ko doon jéem faram fàcce yaakaar naa waxtaan wi benn bu ci ne tomb bu ci ne rek mat na waxtaan boo jëloon al ilmu naafi la muy fiireek njariñ ya ca mën a juddook yan xeeti xam-xam lay doon ak ak naka la ko murid yi dundeeg ca jëmmi jamono ba jamono yi ñu yegsi boo ko doon xool lu yaatu lay doon boo ñëwoon ci al amalu saalih noonu boo ñëwoon ci al adabul mardi muy ay teggin noonu lu mel noonu da ciy mën a am waaye ginnaaw comme waxtaan yu luñ doon ubbi la rek luñ doon ubbi du hmm. ñàkk incha allah bu yeneen jëmmi jamono bu jot gënee am waxtu wi gën a yaatu ñu génn yi danañ ci gën a mën a yaatal xam naa damay jox sëriñ Issa rek boo defee mujj wax kàddoom mujj ak lan lay dénk suñu mbokki taalibe bu ko defee bu noppee ñu jox suñu maam moo daal di tëj jotaay bi incha allah. barabu diine la itam kon baax na ñu fi jëlee kàddu goo xam ne dana jëriñ nit ñi fu ñu mën a nekk na taalibe yi. Hmm. waaye di fàttali sama bopp di fàttali itam mboolem taalibe Cheikhul Khadim yëpp rek ak bépp jullit bu koy dégg ne diine daal diine moom lu mat a xam la loo xam ne du ay xalaat du ay gis-gis waaye ay ndigal la yu jóge ci borom bi jaar ci bu jóge sunu borom jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay boroomi xam-xam ak i nit yàlla yu mag yu bari yu mat sëkk ci seen wàll yépp ci man koo leeral jaar fii def seen dund gépp ci lu koy leeral lu tax nit ñi dund ko ba mu yegsi ci ñun te kooka sunu sëriñ bii di Cheikhul Khadim radiyallahu anhu kenn la ca ñooñee doon ca jàmbar joo xam ne nag moom ñëwu ca kenn loolu nag kon bu fekkee dañ koo doyloo ba tax ñu ne dañ koy topp ànd ak moom ngir mu won ñu yoon yàlla jaaral lañ ca baax na yitam ñu jéem a xam kon lim indi lu mu doon bañ mën caa teg suñu tànk buñ ko xamee itam jéem a góorgóorlu nag ci luñ mën a def ba teg suñu tànk ñaan suñu borom boo ñu defal tawfiq ak ndimbal di sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ <coughs> ñu jox la nga sa kàddu yu mujj ak li ngay dénkaani. jërëjëf sëñ Jili xanaa di am mbégte rek ci bokk ci jotaay bi euh, di ko di ci sant yàlla bu baax euh, di gërëmit waa daayirat Muxaddamatul Xidma gi nga xam ne ñoo ko taxawal te bii di benn ci yu bari yu ñu amal lépp di jëm rek ci liggéeyal sëriñ bi. daayira bu am solo boo xam ne it euh, bàkk bi ñu yëkkati teg ko ci seen kanam rek day fësal seen pëstéef ak seen yéene ju rafet te mooy waltu doxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitan bil haadil fi euh, defar ak yéwénal ak sàkku ngërëm rek moo leen tax a jóg muy lu am solo ñuy sant bu baax mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi di leen ndokkeel ci jamono ji ñu nekk rek nga xam ne euh, mooy fàttaliku ak jiima jëfe ndigalul sëriñ bi nga xam ne waxoon na ne ay ay ay xéewalam saa su ne day gën di yokk waaye rawatina bu weeru safar ñëwee te mu waxoon ne bu ñëwatee képp koo xam ne mbégam sa mbég la rek na ko ci santal yàlla kon yëpp ci cant kooku la la duggu euh, ñuy ñaan suñu borom defal ñu ci tawfeex ak ngërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa kon jërëjëf sëriñ Issa jërëjëf sëriñ Mamour. Hmm. yéen tamit euh, daayira bi di leen sant bu baax a baax di leen gërëm. waaye sant borom xam-xam yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun jotaay yi weesu ak jotaay yi waaj ñëw yëpp. di leen sant ci yu bëree bëri xam nañ ne waxtu wi fi ne na lool yitte yi bëri na di leen di xaar tamit bëri na lool. waaye ci seenu jàppandal ak euh, xam ne ci liggéey bi ngeen bokk ba fu ñu leen woowee rek ngeen daal di jàpp ni teew ci suñ kanam liñ leen di doyee it ngeen taxawee ko ba mat sëkk loolu dañ leen ci sant bu baax a baax di ñaan suñu borom ngeen tase ci ngërëmul Sëriñ Tuubaa di sant ñu doon teewlu ñëpp ci MK TV di leen gërëm di leen jox dig daje ba suñu yeneen jotaay insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu abaxya fi ixdami xayri wara bada wa fi kulli shahrin zayd ribxi wa fi safar